waaw tey dañu ñëwoon fii ci dikk euh, pour euh, déposer suñu plainte ma ànd ak euh, sama xarit nekkoon sama avocat maître Babacar Ndiaye nga xam ne bii li may bëgg a déclarer nii di am moom moo doon sama avocat ànd ak man kon tey dafa ñëw gunge ma ma ñëw wax dëgg yàlla mu manifester ma solidarité ci li nga xam ni moom ma daloon le 16. Euh, mars deux mille euh, deux mille vingt nga xam ne dama jóge woon ci benn émission ca TFM euh, am ay samba boy yoo xam ne dañ ma topp tiire ma ay bal pour faat sama bakkan booba ba mu amee nag déposé woon nañ sunu plainte ca section de recherche ba ñu wooñu sama avocat taxaw man ma taxaw ñu dégluñu ñu wax li nga xam ne moo xewoon waaye boobaak léegi dara demul euh, woowaatuñ ñu wala boog woowaat biñ ñu woowaat ni ñu dañ ñuy woon ay vidéo mujjuñ ñu ko won ne daan ñu woowaat te boobaak léegi kenn woowuñu kon nag comme tey ñëpp gis nañ Sénégal ne ki nga xam ni ba ma mbir mi dalee waa hôtel Radisson jox ñu vidéo yi ñu wane ko ci euh, média yi ñi ko xam ñëpp nee nañ kii nga xam ne moom la dig jàpp tey muy Jérôme Bandiaky moom moo feeñ ci image yi nga xam ni euh, bi nga xamee ni dama génn ci émission bi TFM booru minuit et demi jàpp une heure du matin may dawal sama oto di ñibbi jaar ci corniche bi bi ma ñëwee ba tolloog euh, mosquée de la divinité ci la dégg euh, ay tiir yoo xam ne ngi dal sama oto rafal yu méttee méttee metti ma gaawantu yokk sama sama vitesse appuyer ci accélérateur bi bu ko defee génn ci seen champ de tir loolu nag bi ma ko defee yàlla dimbali ma ma ànd ak sama sang froid euh, dawal sama oto ba ci buntu Radisson bi ma wàccee ci buntu Radisson bàyyi oto bi mu galen buntu buntu bu mag bi ndaxte aw bugguma woon a jël risque di dem di def euh, ay formalité ma dem wax ak vigile bi wax ko ne ko dafa am ñu tiiree sama oto ndaxte bi ma wàccee rek gis naa impact bali bi may dem ma dem wax ak moom ne ko am na ñu tiiree sama oto léegi moo tax ma gaare oto bi bëgg dugg ci hôtel bi mu ne ma gaawal nga dugg ci biir euh, sama yeneen collègues yore sécurité bi ña nga fa ma gaawantu dugg ci biir hôtel bi bi ma duggee ñëw euh, fekk vigile yi ci réception bi ma wax ak ñoom wax leen li nga xam ne moom moo ma dal ñu ne ma kaay ñu yóbbu la ci kaw ci poste de commandement bi ñu yóbbu ma ci poste de commandement bi jël assenseur yi bi ñu defee loolu sécuriser ma ba pare ñu jël seen i arme wàcc pour taxaw Euh, pour xaar ñi nga xam ne xëy na ñoo ma doon topp ñoom it ñu am la tuppee ñëw topp si ma ba ci biir euh, hôtel bi ñëw ba ci réception bi image yi jël leen mu leer nañ ñu ni bi ñu yegsee ñoom vigile yi li leen wax mooy ñoom dañoo bëgg ñu jébbal leen ki nga xam ne mooy dàmbooj nga xam ne dugg na ci biir hôtel bi vigile yi nag def seen liggéey daan ni ñoom duñ ma jébbal ndaxte loolu bokkul ci seen euh, seen i droit comme ñëw naa dugg ci hôtel bi ñoom amuñu benn sañ-sañ pour jébbal ma kenn koo xam ne amul benn droit ci man léegi loolu moo tax bi ma fanaanee ci hôtel bi nag ci laa xëy euh, ma dem euh, ànd ak sama avocat mu ngi nii taxaw euh, nga xam ne tey naam liggéey mayetu ko xëy na mu kon ne défendre dossier bi mais dina ma boole ak cabinet boo xam ne dañ ma taxawu ndax ñu mën a àggale liggéey bi li nga xam ne moo am nag mooy Euh, booba bi mbir mi amee Sénégal gépp nangu nañ ñi xamoon kii nga xam ne moom lañ jàpp tey muy Jérôme Bandiaky ni bi vidéo yi génnee àdduna bi yëpp ñi ko xam ñëpp ñiy liggéey ci police beeg gendarmerie te doon wax ci suuf bañ cee feeñ ñëpp neewoon nañ photo yi génn amuñu benn sikki sàkk que moom Jérôme Bandiaky moom moo dugg si ci biir hôtel Radisson ci guddi génn ma gën ma agressé te ñëpp gis nañ ko mi ngi yore téléphone am di am ku muy waxal ci image yi am moo génn ci li ñu Radisson jébbaloon kon nag section de recherche ci sunu kanam woote woon nañ ni euh, waa hôtel bi képp ku liggéey yoon ci guddi googu muy le 16 mars 2023 nañ ko convoqué ñoom daañ fay yónnee benn équipe pour que ñu dem def seeni enquête te jàpp naa ne loola defoon nañ ko nee nee nañ tamit ca jamono jooja jëloon nañ caméra de surveillance yi nekk ci diggante TFM ba fi nga xam ni fi lañ ma fi lañ ma fi lañ ma agressé ba ci hôtel bi hôtel Radisson ñu jëloon nañ réquisitionné woon nañ caméra de surveillance yëpp kon nag loolu lépp bu ci amee nga xam ne ñoom hôtel bi ci boppam am na ay vidéo yoo xam ne leer na nañ ne photo yaa nga fa ñoom seen i enquête moo war a leeral beneen bi mooy am nañ ay Euh, débris de bal maanaam ay sele yoo xam ne ay bal la yoo xam ni ci oto bi la ko waa Radisson waa hôtel Radisson fore ginaaw bi ñu euh, demee euh, gis ni sama oto ñoom ñëw nañ sax bi ñu yegsee ba topp si ma ba ci hôtel bi dem nañ ba ti oto bi ba ubbi ko ba jëloon sax samay pièces ak comme ni ma ko déclaré woon à l'époque ak samay caabeeg lépp waaw léegi nag comme léegi situation bi leer na ni ki nga moom lañ doon soupçonné wala ñëpp jàpp ni moom la ay image am génn ci hôtel bi euh, ci caméra de surveillance yi euh, mi ngi ci loxo yi DIC kon ñun suñu rôle mooy ñu ñëw fii ci DIC ñu déposer suñu plainte pour wax ne danoo bëgg mbir mi ñu leeral ko léegi nag enquête mooy leeral ndax moom la wala du moom ndax photo yi moom la wala du moom ndax moom moo ma doon topp ak kan moo ci doon ànd ak moom ak kan moo ko def loo li nga xam ni moom la def euh, loolu lañ bëgg xam kan moo nekk ci ginnaaw ñi nga xam ni ñoom ñoo ma topp tiire ay bal ci sama oto te nee naa sànq commissaire bi oto bi mi ngi fi impact bal ya ba léegi kenn defaru ko euh, lii laa xamoon ne ba fa muy mujj dina am mooy dinañ am moment boo xam ne enquête bi dina mën a avancer bu ko defee nee naa ko man maa ngi ci disposition yoon euh, oto bi nga xam ne moom lañ tiire également mi ngi ci disposition yoon kon tey lii lan woon pour def si ko euh, plainte baa ngi nii déposé nañ ko bañ defal ñu sunu décharge plainte baa ngi nii déposé nañ ko à la DIC euh, defal nañu sunu décharge euh, également déposé nañ photo yi nga xam ni moom la ñu amee woon ci moment bi nga xam ni le lendemain moom la ñu capturé ci caméra de surveillance yi nga xam moom la moom la ñu hôtel Radisson joxoon. donc extrait caméra de surveillance yi yi euh, yi ñu Radisson joxoon mi ngi nii euh, euh, déposé nañ ko dans le dossier donc euh, pour que lépp leer pour nit ñi xam ne daal léegi li ñu waroon a def ñun def nañ ko photo yaa ngi nii leer na nañ ku ko gis di nga gis ni mi ngi dox ci ci réception wu Radisson bi caméra bi jël ko mu leer nañ mu yore téléphone am di téléphone moment bii muy téléphone kan la doon waxal parce que bu ñu xoolee ñi nga xam ñoom ñooy opérateur de téléphone yi ñu dugal leen ci enquête bi jàpp naa moment bi may wax le 16 av 16 euh, mars 2023 euh, diggante minuit ak une heure du matin bu ñu xoolee comme axe bi ma wax ni fa lañ tiré wax naa ko mu leer muy l'axe euh, mosquée divinité ba ba génn seen champ de tir ñu da ñu ñëw fekk si ma ba. Euh, hôtel Radisson te moom mii nga xam ne tey moom la ñëpp wax ne image yi génn euh, ci vidéo de surveillance bi moom Jérôme Bandiaky la ñi ko xam ñëpp wax ni moom la kon nag war nañoo mën a jël téléphone am euh, opérateur de téléphone yi wax ñi nga xam ne fa la abonné ci ñoom moment boobu fan la ko fekk pour mu leer ndax moom la wala du moom parce que ñëpp gis nañ ko ci vidéo de surveillance yi mu nekk di wax téléphone léegi nag. li ma bëgg a wax ci loolu mooy réew mi mun ñu fee nekk lu mel nii am fi ñu bëgg koo nëpp nëppal jàpp naa ne nguuru Macky Sall moo doon def loolu mais réew mi soppeeku na réew mi na comme soppeeku na ay kilifa yu bees ñoo fi nekk yoo xam ne jub jubal ak jubbanti la ñu woote te gëm naa ni ku képp ku dul naafeq gis nga ni ci loolu lañ nekk comme jub ak jubal ak jubbanti lañ nekk kon euh, na ñëpp am yaakaar ci ni daan ko leeral ba mu leer nañ ndaxte Euh, réew mi Sénégal mérité wul nit ku taxaw bëgg a faat doomu aadama bu la deful dara même ku la def dara amoo droit faat bakkanam waxantuma laa ku la deful dara kon jàpp naa ni nit ku mel noonu mérité wul di nekk ci biir askan wi kon bu ñu ko téyee jaadu na mais li gën a am solo mooy ñaaw teef bu mel nii ki nga xam ne moom moo ko doon sooke parce que tey li naroon a am mooy heure bii ñu naan Dame Mbodj day wax dëgg yàlla anniversaire rayam mi ngi waaj a ñëwaat ndaxte ñëwoon na 16 mars bii nu génn kon 16 mars prochain lay def deux ans kon nag man dama war a sant yàlla subhaanahu wa taala mi nga a ne parce que wax dëgg yàlla euh, ku gis oto bi xam ne ku ca rëccee xamal ne yàlla subhaanahu wa taala moo nammul woon ne sa bakkan dafa war a dafa war a rot parce que bakkan yàlla subhaanahu wa moo ko yore kuy war a dem di ko wuy ji moom mooy wax ban bis lay doon ak ban heure lay doon waaye ñoom jéem nañ li nu mën donc def nañ seen i pexe pour faat sama bakkan képp koo xam nag réew mi da nga fay nekk di faata di faat bakkanu doomu aadama yi euh, yoon daf laa war a teg loxo daf laa war a teg ba noppi nag làq la foo xam ne yow dootoo mën a defati xeetu ñaawteef yu mel noonu kon ñun li ñuy sàkku ci justice su Sénégal mooy lii nga xam ne moom moo ma fa dal depuis euh, date boobu ba léegi te leeralaguñ ko. ñu def ci liñ ci war a def lépp pour leeral ko bu ko defee képp koo xam ne laale nga ci muy moom mii nga xam ni moom la image yi wane ni moom moo ñëwoon di def tentative d'assassinat bi ak ñam ca àndaloon ak ki nekk ci seen ginnaaw wala ñu nekk seen ginnaaw lépp enquête bi génne ko ba nopp ñu jaarale mbir mi yoon bu ko defee ñu teg leen daan yi leen war a daan parce que nit kuy rayaate waratoo génn ci askan wi di dox parce que kooku kenn mun mënta may kenn mu koy def ci àdduna bi waxantuma laa ak sunu réewum Sénégal mii nga xam ni ñun xamuñu loolu ñun luñ mën a am ci penc ku nekk da ngay wax sa xalaat waaye dem di jéem a rey sama roomu daamu a sama roomu doomu aadama kon loolu kenn warta nangu kenn di ko fi def ci penc mi kon nag képp koo xam ne yow loolu nga jógtee li nu jàpp mooy dañ laa war a euh, làq jant bi ba nga xam ni dinañ mën a ño euh, euh, aar askan wi parce que nit ku mel noonu danger la pour ñu koy bàyyi muy circuler ci biir askan wi kon lii laa bëggoon a wax ci euh, wolof di ko tënk rek ci français aujourd'hui je suis venu à la DIC pour déposer une plainte la plainte que voici a été déposée cet après-midi euh, devant le commissaire de la DIC accompagnée de quelques éléments de preuve nous avons des photos que nous avons présentées au commissaire et nous pensons que Ces photos vont servir à démarrer l'enquête parce que lorsque nous avons eu ces photos, à l'époque, le jour de la tentative d'assassinat, les gens qui connaissent cette personne avaient dit que ces photos reflètent l'image de Jérôme Bandiaki. C'est ça que j'avais reçu comme information de, de plusieurs personnes qui m'avaient appelé à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, accompagné de ancien avocat, à l'époque, maître Babacar Ndiaye, qui était mon avocat. Il était mon avocat, il m'a accompagné tout au long euh, de, euh, de, cette affaire. Euh, C'est la nuit du 16 euh, mars 2023, revenant d'une émission à la TFM, que j'ai été euh, donc euh, attaqué par, des, par, par des gens euh, par des, des gens que je ne connais pas parce que je ne les ai pas vus, mais ils m'ont attaqué, j'ai entendu des rafales. Et quand j'ai entendu des rafales, mon premier réflexe était de sortir de leur champ de tir. Et j'ai euh, appuyé sur l'accélérateur et euh, je suis euh, euh, allé directement euh, donc, vers la direction de la ville. Et je me suis dit que le premier refuge que j'aurai, je vais me garer là-bas pour essayer de me sauver. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que, euh, après un bon bout de temps, il y avait l'hôtel Radisson qui était à ma droite. Et je me suis dit que les hôtels euh, sont estampillés zone internationale, je, je me suis dit que c'était un bon refuge pour moi. Et je me suis garé devant l'hôtel. J'ai parlé rapidement au vigile de l'hôtel pour le dire que j'ai été poursuivi et qu'il y, a, euh, y a des gens qui ont tiré sur mon véhicule. Et c'est à partir de ce moment que le vigile m'a dit de, euh, de, de, presser le pas et d'aller à l'intérieur de l'hôtel. Et arrivé à la réception, j'ai également expliqué aux autres vigiles qui y étaient, et ces gens-là, de façon très professionnelle, m'ont accompagné euh, à travers les, euh, les ascenseurs et m'ont amené donc, au niveau de leur poste de commandement. Et arrivé au poste de commandement, ils ont sécurisé toutes les portes et sont euh, descendus avec, euh, donc bien armés, Et c'est en ce moment que des gens, euh, d'après ce qu'ils m'ont rapporté après, euh, après, après cela, que des gens sont venus et euh, ont réclamé euh, que euh, Dambout leur soit livré. Et c'est en ce moment-là, maintenant, que euh, ces gens-là ont pris leurs responsabilité pour refuser de façon catégorique. Et donc, face à ce refus de, de, me, de me livrer, ils sont partis avec, avec des menaces. Euh, c'est euh, donc euh, comme cela que la situation s'est passée. Euh, on m'a euh, trouvé une chambre d'hôtel au niveau de Radisson. J'ai passé la nuit et très tôt le matin, donc la sécurité de l'hôtel est venue me réveiller et j'ai appelé mon avocat à, à l'époque Maître Babacar Ndiaye, ici présent, qui est venu le matin avec un huissier et on a fait donc euh, les diligences nécessaires et l'huissier m'a entendu devant mon avocat. Et c'est à la suite de cela que nous sommes allés à la section de recherche. Nous avons porté plainte. Donc le 16, euh, le 16 mars 2023, nous avons été entendus. Euh, nous sommes retournés à la section de recherche une deuxième fois, convoqués par le commandant de la section de recherche euh, qui voulait nous montrer des vidéos euh, qu'ils avaient euh, donc réquisitionnées sur l'axe TFM et l'hôtel Radisson. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous montrer des vidéos parce que euh, il a dit à la dernière minute qu'il était empêché et nous sommes retournés en attendant qu'il nous rappelle. Malheureusement, depuis lors, on ne nous a pas rappelé. Aujourd'hui que la situation est, a évolué et que cette personne qui a été identifiée euh, par beaucoup de gens depuis lors euh, et, que son nom a circulé un peu partout pour les personnes euh, qui, le, qui, le, qui le connaissent, nous, nous pensons que c'est le moment opportun de déposer à nouveau notre plainte et c'est ce que nous venons de faire auprès du commissaire de la DIC euh, et nous lui avons euh, également donné les éléments, de, les débuts d'éléments de preuve que euh, nous avons les photos qui, sont, euh, qui, nous ont été envoyées, qui nous avaient été envoyées à l'époque par l'hôtel Radisson. Maintenant, nous savons qu'à l'époque, Radisson avait des, euh, avait, avait des débris de balles. Euh, ramassés dans mon véhicule. Et également, euh, il y avait les vidéos de surveillance qui avaient pris les images euh, et les images sont très claires. Donc, euh, il y a assez d'éléments pour euh, diligenter l'enquête. Nous, ce que nous voulons, c'est que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce qu'une personne aussi dangereuse ne mérite pas, ne mérite pas de vivre dans la société. Nous pensons que euh, la justice doit faire son travail, que les, la procédure doit être enclenchée et que euh, euh, vraiment euh, toute cette affaire-là euh, soit tirée au clair pour que ces personnes-là dangereuses ou cette personne dangereuse soit mise hors d'état de nuire, mais également que les instigateurs ou les commanditaires puissent être identifiés et également puni conformément euh, euh, à la loi. Donc nous, nous considérons que c'était notre devoir euh, de venir déposer notre plainte euh, pour que euh, vraiment euh, cette affaire soit tirée au clair. Nous n'avons pas le droit dans ce pays d'accepter que des gens pareils euh, puissent vivre avec nous dans la société. En tout cas, c'est ça l'objet de notre déplacement ici à la DIC cet après-midi. Et nous voulons que tous les Sénégalais sachent que euh, cette affaire-là, euh, nous ne l'avons jamais abandonnée. Nous avions porté plainte, l'enquête a traîné les pieds, euh, l'affaire euh, n'a pas évolué depuis lors, mais maintenant que la personne est entre euh, les mains donc, de la justice, nous pensons que c'est le moment de tirer l'affaire au clair et que toutes les parties concernées soient convoquées et que l'enquête soit diligentée pour que vraiment cette affaire soit tirée au clair. C'était ça l'objet de notre déplacement ici et nous avons confiance en notre justice parce que ce pays n'est plus une république bananière. Ce pays est aujourd'hui gouverné par des autorités responsables qui ont pour mission de remettre les pendules à l'heure, qui ont pour mission de faire toute la lumière sur les affaires qui ont secoué la République pendant plusieurs années avec un régime dictatorial qui était ici au Sénégal. Maintenant, nous pensons que c'est le moment pour la justice de, de, de, de mettre, euh, de, remettre ces dossiers sur la table et que toute la lumière soit faite sur ces genres de dossiers pour que euh, plus jamais ça. Parce que nous n'avons pas le droit de laisser des bandits de grand chemin circuler librement dans la société que des, des gens aussi dangereux puissent rester dans la société et puissent continuer à commettre leur forfaiture. Donc merci beaucoup, c'est ça que j'avais à dire. Merci les chers journalistes.